amoo sa waa kër lu ñuy dundee ah tamit loolu dañ xaw a comprendre de. bu dee denc na ñooñu dañuy am ay kii ay suñu jargon ñoo amul ay carte bancaire. non non ñu ubbi ay carte bancaire di di di fa dugal seen xaalis. nga toog rek ba mu leer xam nga tey côté boobu itam il faut que euh, tamit xam nga man je suis pas un spécialiste en droit. je le dis mhm. chaque fois tamit xaw ma loolu la justice bi téye ci loxoom ba bëgg a tere ñenn ñi dañuy tere ñu bañ a génn réew mi. Mhm. xam nga loolu moom c'est mais tamit am na ñoo xamante ne ginnaaw bañ leen jëlee ca fa ñu nekk itam faw ñu dundal seen njaboot ñenn ñi xëy na biti réew lañ lañuy la ñuy liggéey jee moo tax ñu bëgg voyage ñenn ñi itam peut-être dañoo bëgg a daw on ne sait pas. mais daal li ñu denc si banque yi nañ ko génnee dundal ci seen njaboot nga xamante ne dañoo bëggoon daw dëgg-dëgg moom mooy ñi nga xam ne dañoo jaar ci frontière yi euh, fi ñu ne man réew mi nga jaar ci frontière yenn dëkk yi wala dem Gambie jël roppalaan ñoom ñoo ñoom moom dañoo daw ñoom la ñu def moom leer na ne ñii dañoo def tonton Doudou nag li ma la wax si nga ne. je sais pas activités yi <laughs> non je sais pas je sais pas je sais pas def dara dañ lay laaj rek j'ai pas cité de nom. Hmm. mais en tout cas daal ña nga xamante ne ñoom leer na def nañ tooguñu ci réew mi dañoo def passation de service ne ñoqat daw. ah am na ñu daw. da ngay laajte. Hmm. am na ñoo xam ne itam leer na def nañ nanguñu wax de nee nañ pat kenn xamul fu ñu nekk. waaw ah. pourtant man maa ngi laajte fan yëpp kenn faalew ma borom borom café Touba fu mu ne kenn faalew ma ah yàlla baax na xëy na internet dinañ may wax borom café Touba gi. maa ngi ci réew mi dañuy dañuy yem ci Idriss Diabera parce que. ci moom damay laajte rek pour laajte rek <laughs> a gis gëj leen ah, ñu ñu ñu ne ñu ngi parce que nekkoon nañ ci réew mi <laughs> chaque instant ñu gis leen. kon nag léegi léegi maintenant maintenant on attend aussi da xam quelle sera la réponse vraiment des des autorités waaw mais vraiment côté boobu tamit bëgg naa gars yi des ñu leen di teel di avertir ne oui vous êtes vraiment la justice a besoin de vous ou bien vous êtes cité dans tel tel dossier. non ko jarul ko rek ku ah, dem ba aéroport mais mais mais si mais notification nag dafa war a am pour dire vrai parce que tamit am na loo xam ne Mareta yoon da koo santaane. Mhm. il faut que tamit qu'on se tamit man certaines méthodes je contre formellement man man dama ko dàq. Mhm. parce que tamit bul bul bul bul may sa noon foo xamante ne fa lay jaaree ngir xas la. Mhm. man je pour. que képp koo xamante ne tere nañ la génn réew mi ñu notifié la ne dañ la tere génn réew mi waruñu la bàyyi réew rek nga war a tukki wayaas kenn xamul ndax da nga feebar kenn xamul ndax war nga liggéey ñu ne la waroo génn réew mi parce que on a reçu de telle et telle instruction mm. mais su fekkee dañ la tere génn réew mi mais nañ la ko notifié soit disant bi ñu jox la ko nga téye ko su nekk am ngay avocat say avocat dem laaj lan moo tax ñu tere la génn réew mi pour au moins qu'on soit quand même un peu plus légaliste tamit mm. parce que yoon tamit waroo koo doxale nu mu la neexee nga xëy rek ni nit ki waroo génn réew mi man moom ça je suis formellement contre <laughs> parce que yoon soo koy doxal itam yoon ñëpp la fi nekkal dafa mbir mi dafa boo doon génn réew mi kenn du la laaj foo jëm man buñ doon génn fii <laughs> ah man mi war a dem Maroc sama xarit bi mu tudd Binta Sarr mi moo war a dem seeti Maroc hmm. xam nga ni su ma doon dem kenn du ma laaj foo jëm kenn du ma téye ah ku ñu téye nag am na lu tax. Ah, mais lu tax loolu moom laa def. mën na a génn. ñu ne fausse nouvelle. il man je pour man je veux dire que je pour que ñoom ñu bañ a génn réew mi parce que bëgguma ñu génn am na ñoo xam ne dañuy daw man nee la ñi nga xam ne leer na la ñoom def nañ dañoo daw. mais dama ne man dama li ma nangu mooy. ñan ñoo daw. Marieta moo wax la waaye bul delloo débat bi ginnaaw yaa gën a xam ñi daw ñi nga xam ne ñu nekk Canada wala ñu nekk Maroc ñoom dañoo daw ndax dañoo def passation de service ak ni ñoqet daw mm. xaar ñu sax ñu xool documents yi ndax def nañu defuñu dañoo jël seen roppalaan rek daw nu mu gën a mm-hmm. euh, waaw mbirum Idrissa xam nga euh, man may jàpp sax mën na mm. kon yëgu ma woon sax dafa am ñu daw man dafa def voyage rek simple voyage euh, foofu foofu man dama jàpp ni maanaam tey yoonu Sénégal chaque jour moom lañuy wax rek parce que fi mu ne nii wax dëgg yàlla ñoom xam nañu ne képp koo xam ni ah en tout cas nekkoon nga ci nguuru président Macky Sall fi nekk nii euh, doon def état des lieux bu ñu paree nag danañu jëm ci mbirum reddition des comptes beneen bi ci des mooy euh, xaw ma juróom-benn weer sans salaire xaw ma politique nag du métier. Ah, waaw ah, moo tax ma ni foofu wax dëgg yàlla booy booy dugg ci politique nag fekk nga am métier boo paree ci politique mais nga delluwaat ci sa métier. Hmm. ko defee doo sonal kenn mais bu fekkee ni yow da def politique métier hmm. ah, ci loo xam ne yow ay man mandat lañ la jox mën na nekk benn mën na nekk ñaar boo ci paree da nga ciy pare sa moroom ñëw kooku bu fekkee ci moom nga def métier moo daan indi yenn hmm. <laughs> mooy tax itam boo paree wala boo ci paree ngay nekk ci ay jafe-jafe wala doo bëgg a pare lum la leen lu ne dala koy jaral pour que nga bañ a pare ci mandat yooyu noonu moo tax ma jàpp ni encore une fois politique euh, du du métier c'est Afrique Sénégal rek ngay ñëw gis koo xamante ni si ni maanaam politique képp mooy métier bu mu dal. bu liggéey fii nekk député kese mooy métier. dem fii loolu lépp ñoo xamante ne nekk député kese mooy seen métier. loolu lépp nag li ko indi. journaliste sans exercer kese la. doo bàyyi kii mu yeggale parce que Ousmane Sonko moo tëj porte yëpp moom moo ne fi mu ne nii fu waaye nekkoon ba le 24 mars. Hmm. na nga fa continuer toog. Ah, mooy mooy moo indi moo indi daw yi moo indi ñii di def yoog yii nii yooyu yooyu yooyu yooyu kese moom moo ko indi de <laughs> tey bu fekkoon te ni yolomal na affaire yi gars yi man a am fut jaar parce que am na ñoo xam ne ñoom li ñu doon waajal mooy dem transhumé. waaw daw làqu wut fu ñu làqu. mais Macky Sall bi mu dikkee en 2012. yëkkati kër yi ñu naan wooy mu singil Karim Wade. Mm-hmm. ana ñañu ñi ñi ñi àndoon ak Karim Wade mais menum Karim rek lañ ci seppi. ñeneen ñi ci des ba ñu ñeneen ñëpp ba ñu dawee dem fekk ko dañu leen a bàyyi jox leen ay protéger leen ba pare jox leen ay privilèges teg ci léegi nag léegi nag loolu ku ne xam na ni ak ñii mais bu ñu ko bëggoon a def sax askanu ñoom ñee leen ci dul bàyyi ku ne xam na ni loolu ak ñii du nekkul luy am kenn ku ci nekk en tout cas euh, di nga ñëw nga leeral parce que nag euh, nu mu tuddati euh, mënuñu ñëw tey topp jël la teg la fi en tant que DG euh, nga def benn ñaari at wala ñetti at boo xam ni mais booy dem keneen ki ngay jox lengay mais di ngay def moom passage passation de service. Mm. nga def ak def ak moom état des lieux ko lii ak lii ak lii nii nii la di fi demee ñu xool ba xam mariétam yi kët boîte bi mu yoroon muy Sunugal 24 ah. li fi mm. doon guus ci ay koppar ndax ni mu ko doon ni mu ko ko. <laughs> <laughs> ni mu ko doon mm. organiser jaar yoon yaakaar ne maay directrice suñu wala jaar yoon ama bu ñu ah. benn kebe war a wàcc si terrain bi war a dem foo xam ni euh, essence euh, cinq mille la war a jënd mm-hmm. Marieta décaissé vingt mille francs ay waay ci foo xam ni cinq mille rek moom moo war a dem <laughs> respecté <laughs> waaw dëgg yàlla kooku buñ la wooyee nag ni la liggéey fii cinq mille moo fa waroon a dem te gis nañu vingt mille francs nga décaissé mm. quinze mille yi foo ko dugal indiwoolu leer yi wala ki daara xam ah. naa ay café ndox rek Eh, mais mais waa ji waa ji xaw naa gëstu ndekete waa ji tamit la double nationalité te il est né en France ndekete. kan si. de sa jabaram wax nii. waaye né en France fii la exercer <laughs> suñu yoon nekkul si né en France né au Maroc ak né aux États-Unis moo ci yam kii nañ la jox ay normal tànk nañ arrêté ay né ñoom balaa ñu muy mën a dee ci Sénégal la ñu ni kii double nationalité il est né il est ah, né là fii la exercer mais loolu conséquence bi nag. maanaam ah, xam nga am na ñoo ne ñuy fal waay ko waxee woon ci kii juddoo mais ils ont cette possibilité su ñu xefee ba génn réew mi baa duñu leen mën a tegaat loxo hein c'est c'est loolu itam il faut que il faut que ñu xam ko. ah donc tey en lisant ça. li mu lire nii donc nañu am yenn compréhension yi. waaw mais nag nag nag ak Sénégal ñun nañu xool ñi ñuy fal wala double nationalité yi li ñu leen di doye nga xam ne bu daw waree am da ngay dem ñibbi sa dëkk. ah loolu nañ ko xoolaat du yoon. dafa yoon trop dem dem dem dem dem dellu sama gis Aline Bare ba ñu fàttali kaaw Aline Petit Mbaye. li Petit Mbaye moom moom takkee jaajëm ba léegi dafa mel ni <laughs> mais nag loolu loolu sax loolu rek condamnation la de. Ah, ah. loolu rek condamnation la parce que fi nga juddoo màggee wi say mbokk ñëpp nekk fi. nga gàddaay fi nga dootoo faa dellusi ñi nga xam ne ñi dem ñu ci bare bari lii seen sàkk ak li ñu gën a bëgg mooy am teraanga ba ñibbisi. fii ci réew bu Sénégal yow nga bàyyi fi say teraanga bàyyi fi say mbokk ñëpp dem gàddaay lànk ñu dootoo dellu si loolu rek pour man hmm. condamnation la boo xam ni dara gënu ko euh, dara gënu ko gënu koo metti moo tax fii daal lu fi waay ji def luñ la dénk loo ci def na doon loo xam raw ci ne moment yi ñu toll hmm. c'est ça c'est ça euh, moo tax vraiment ñi nga xam ni daaw nañu nañu dellu si assumer parce que loolu nag moo yëfu góor yàlla. parce que euh, ñun am nañu yoon boo xam ni Pape Ibrahima fay nag na ma bàyyi ñun xamuñu duudu ko wóor na yàlla man tonton duudu jéem naa xool xool fan la nekk mais xamaguma sax fan la nekk ñun xamuñu sax fal la nekk tonton duudu boo ñu déggee rek ñun tuiteel rek yow tuiteel rek ñu xam fan nga nekk. <laughs> yàlla baax na sérieusement mais na tuite tuite na tontu El Malick Ndiaye ni li mu wax nangam nangam tuite mais na tuite tam wax ni man ma maa ngi fii ak fii pour mën a leeral sénégalais ñu xam ne dawul parce que li ñuy teg si deram bi neexuma ñu naan dafa daw ak daf daw na leeral ñu <laughs> mën na tuite kay. <laughs> xam naa mi ngi lay dégg yàlla baax na. ah waaw baax na ku ko dégg nag ko jottali de na tuite rek. en tout cas ñaari façon daw moo am. daw génn réew mi ak daw làqatu ci réew mi kenn du la dégg. waaw am nañu am na nag ñu nekk ci village yi ñu nekk seen village ñoo xam suñu dem seen village di bay wala waaw léegi dañuy dem seen village yi nekk ak seen waa village yow yow yow yow nga ne kan moo fa dëkk yow kii Kébé Louga waaw Louga kay ña fa dëkk bari na ah, ah, sànq dama ne woon sànq maam Mamour Diallo ak Moussa Diop laa doon wax ah. mais am na tam Mbengue Ndiaye nga fa ay yéen tam waa Louga Abdoulaye Ndiaye nit ci Thiès la waaye nit Louga yéen Abdoulaye Ndiaye moo lañ def foofu tête de liste sax euh, waa Pastef yàlla baax na en tout cas daal ña dëkk sàqal ak beneen dëkk Ousmane Sakal waaw am nañu am dëkk Sakal am na beneen dëkk waaye ay Gën Saar ñoom ñëpp village yooyu yëpp nañ ko dem xool. nañ dem xool waaw. ñee Gën leer Gën Saar Saar Gën Saar ba <laughs> sama sama village la. <laughs> sa village fa ah, xooli ñun moom. ñun moom waalo amuñu kenn. amul ko fa laa jàngee laa jàngee ba mu bakk Gën Saar mooy sama village. lu ko laa jàngee ba am bakk xam nga village yi boo amee BFM. CM ñu euh, ci am lycée bariwul. CM rek lañ daan am boo après dem da ngay dem ci ville bi Louga ville foofu ngay jàngee foofu ngay foofu ngay wute sa bac mm. mais gën saa googu itam. bëri na ay kii. <laughs> tubaarkàlla. ah amul ñu fa laaxatu. tey man nitu Louga ak nitu Thiès. am na am na article bu mu ci bindoon sax ba ba partage. <laughs> ah yàlla na. yàlla daal nañ naan nañ naan il faut qu'on les débusque ñi nga xam ne vraiment depuis leur moment. wala yaa man ni ma gëj a dégg nag neexuma dara. gëj naa fi dégg ay force occulte gëj naa fi dégg café Touba yi ni tuddee ay kii nu tudd euh, lañ daan sànni xale yi lañ daan sànni cocktail molotov cocktail molotov moom lañ daan wooyee café Touba. moo tax boo daan jënd da ngay daan ràññale yooyu gëj naa ko dégg réew mi neexoon na nag de non sérieux nag réew mi neexoon na. nañ dem Koungheul waxam. Koungheul lu fa ne. voilà Mbéri Mbéri Sylla Alioune Badara ak Mbéri Sylla borom président conseil départemental. ay ay Podor ak ay Ralaaw ak ñoom faw ñu faw ñu dem xool. kii nee nañ dem pour Doudou nañ dem au sud de la Casamance. fekk parce que foofu dafa bëri village yoo xamante ne dañoo xaw dañoo xaw a rukke dañoo isolé wu mbéyum maraakis na faa dëkk 10 ans doo ko xam yàlla baax na tonton Doudou non dina tuité ma déggee rek dina tuité say nag solo nga Doudou Kade ah, non non dañ ñi ma laaj